ñu ñëw ci le cas biram Souleye le les députés ils se sont basés sur l'article 51 du règlement intérieur euh, pour demander la levée des poursuites des poursuites contre biram Souleye euh, am na ñu bari ñu ñaawlu ces propos mais am na ñu bari ñu jàpp ne war nañ ko mën a élargir dès l'instant que moom euh, il a émis des regrets par rapport à ses à ses propos et puis war nañ ko mën a jéggal pour des raisons humanitaires. je trouve déjà que Euh, pour man jàpp bu biram Birame Souleye Diop bi dafa excessif en fait c'est vrai que li mu wax rëy na li mu wax ëpp na mais euh, une erreur reconnue et à moitié pardonnée moom déjà ba mu waxee wax ji ñëpp taf seen gémmiñ ne biram Souleye li mu wax ëpp na ba mu yeewoo le lendemain dafa reconnaître benn que li mu wax ëpp na que bu démb doon tey du ko waxaat pour man loolu doyoon na parce que tamit jàpp ko ci loolu yóbbu ko ci kaso bi alors que moom déjà il la reconnu son erreur dafay niru euh, maanaam li ma waxoon sànq dafay niru singili mais c'est aussi de l'excès pour man c'est excessif en fait coxorte lay nirool après dafay mel ni waa ji danga am ak moom problème problème bi def na benn erreur may na la occasion pour que nga tëcc ko nga jàpp ko di ko tëcc rek bañ koo bàyyi alors que moom taxaw na ci diggu pénc bi yëpp ne ay la yéwén man maa defoon erreur reconnaitre naa ne maa ngi maa defoon erreur damaa jéggalu je pense que loolu bu dee président watara bu Côte d'Ivoire mooy problème pour ñoom buñ ko ko présenté woon dina ne ok à partir du moment où le monsieur dafa jéggalu man jéggal naa ko donc pour man ci champ politique lañ nekk te ci champ politique parfois mën na am dérapage donc dérapage boobu dérapage bu grave la certes mais pour man à partir du moment où présenter na ay excuses mënoon nañ ko bàyyi mu dem bu ñu insister tey ko ci kaso bi sénégalais lambda bi ak man mii du ko gisee lu dul excès maanaam forme de coxorte en plus député la et je pense que assemblée nationale mi ngi woon en session donc normalement waruñu ko jàpp ci li ma comprendre man ci loi Sénégal donc pour man euh, jàpp ku def dara parce que loolu mooy jox justice légitimité te encore une fois j'insiste justice bu amul réew amul euh,